maa ngi rafetlu jotaay bi tey dañoo woo pour ñu waxtaan entre ministère bi ak ADEM ak euh, ONAS ndax ñun dañoo nekk ci collectivité territoriale yi en tant que way dëkk habitant waaye jafe-jafe yi bu ñëwee ci ñun ñii lay ñëw ñu war a waxtaane ndax loo xam ne bu coow amee ca mairie ba la ñu jëme te ñun askan wi xamuñu du du compétence su mairie waaye nag buñ ko defaree ay ouvrage bu ko defaree askan wi moo ko moom ñu war a waxtaane tey jii ñun lan lañ ci lan moo ci suñu wàll ak lan moo ci wàllu mairie bi ñu war a dialogue nga xam ne day jóge ci kaw ñëw ci suuf état bi mën a waxtaan ak maire yi maire yi mën a waxtaan ak askan bi maanaam ouvrage yooyu ñu fay def ñu mun koo ñoŋal pour ëllëg si biir ñu mun koo gën a jëriñoo waaye boo gisee ñu defar ouvrage boo xam ne askan bi xamul njariñam di ci boole ndoxu nawet bi ak ndoxu potit bi tew ku ci nekk dafa am foo xam ne dafa am moom la fa la wala jëm waaye dañu jël ñaar yëpp mboole ko te loolu du taxul ñoo jóg lu ñu tax a jóg mooy maanaam ñu wax ñu ñun en tant que askan maire bi lii la war a def lii la askan wi war a def ñu ñu dooleel maire yi ñun xam ne ñun way dëkk ñu mën a wax dëgg yàlla mun ko suivre bu baax a baax mun ci teg suñuy bët pour ëllëg lu ñu fi teg ñu mun koo ñoŋal loolu moo ñu indi tey jii ñu war a waxtaan ak ministre ministère bi mu war ñoo jàppale nag war a waxtaan ak suñu collectivité territoriale ndax ñoom kat ñoom ñoo ñu war a jàppale te nag buy jàppale askan wa lay jàppale parce que ñun ñi la ñoon ñi la gouverner kon ñun ñi la war a waxal kon nag état bi moo war a wax ak moom jox ko lan la ko war a parce que nit ki boo koy defalal te bo boole woo ko ci amu ci compétence am xamu ci dara kon lu yëfi du ñoom kon nag dañoo bëgg rek lu ñuy def tamit ñu boole ci ñooñu moo tax nag dialogue bi ñu war koo def tey ub waxtaan ñoo xam naa dinañ dialogue dinañ gën a waxtaan. dañuy ñëw déjà ci rafetlu xalaatu euh, taxawal jotaay bu mel nii nga xamante ni si ñëpp ñi nga xam ne ay acteurs lañu di yëngatu. soit en namon maanaam ñi nga xamante ne si ñooy exécuter les politiques de l'État wala en aval ñi nga xamante ne si ñoom ñooy destinataire politique yooyu ñu mën a waxtaan pour xool nan la fexe ba kenn ku ci nekk si ñoom yëg njariñam ak taxawaay bi mu war a am ci assainissement assainissement nekk question boo xamante ni si dafay embrasser plusieurs disciplines maanaam dafa am benn transversalité bu ci nekk donc organisme yu bëri di ci intervenir collectivité territoriale yi nag nekk ci benn euh, mayon boo xamante ne si fu centrale la ci nekk waaye mu war a dialogue ak ay structures yu bëri donc jaadu na nag ja euh, dialogue yu mel nii nga xamante ni si IBP organisé na ko ñu di ko rafetlu bu baax a baax mu regrouper tous ces acteurs la ñu mën a échangé mën a partagé mën a waxtaan kenn ku ci nekk jël ay préoccupations en compte jël ay contraintes également ñeneen ñi mais aussi ñu xam fan la ñu jëm. bu ñu ko xamee également ñu mën ko partager avec les populations parce que en définitive population yi ñoom ñooy jariñoo ouvrage yi ñoom ñooy jariñoo effort politique yooyu donc faw ñoom aussi ñu mën ko comprendre xam ci seen taxawaay moo tax dialogue bu mel ni nekk dialogue bu am solo ñu di ko rafetlu bu baax di rafetlu teewaayu la fédération des habitants fas yéene ànd ak ñoom fexe ba li fi jëlee tey jii ci waxtaan wi ñu mën a fexe ba population yi jot ci mën a xam ñoom nan la ñu mën a jariñoo effort yi nga xamante ni si ay effort yu mag la état du Sénégal di ko def ànd ci ak ay partenaires am ànd ci ak toutes les structures yi nga xamante ni si euh, teg nañ ko fi pour mu gunge population yi pour résoudre les questions de de de l'assainissement ñoom ñëpp ñu mën ci ku ci nekk fa nga war a taxaw nga taxaw fa. njëkk mooy ñu ngi rafetlu. Euh, jotaayu tey bi nga xam ne daf ñu yombalal euh, waxtaan ku nekk jox sa xalaat entre ñi nga xam ne diggante ñi nga xam ne ñoo yor ñoo nekk ci nguur gi di doxal yenn programme yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci maire yi ndax problème su amee ñaan ñooñu rekk kenn lañ ci indexé léegi waxtaan bokk euh, lu ñuy def parce que yéene bi benn la cest à ñu fexe ba nga xam ne coono askan wi ñu teggi ko loolu mooy suñu yéene ñun ñëpp donc li wolof di wax naan réeroo amul ñàkk a waxtaan am donc suñu waxtaanee yaakaar naa ne échangeante ku nekk wax sa xalaat dina buntu dina gën a feeñ am na lu lu ñu jot a def gouverne létat du Sénégal def na lu bëri ci wàllu assainissement mais xam ne tamit am na lu ñuy xaar loo xamante ne nii war nañ ci taxaw te loolu mënuñu ko euh, euh, sottal lu dul dañu booloo mànkoo ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor maire yi mënuñu ko sottal tamit lu dul dañu boole in boole si population bi nga xam ne ñoom comme li ñuy wax rek ni ngay xam ne yow nit ki nga koy defal nit kooku dañ ko war a daf ko war a yëg yëg si ne moom tamit am na si benn responsabilité te loolu jaloog bi nga xam ne mooy waxtaan beeg euh, bi ñu war a dikkal tey daf ko daf koy permettre te du yem si tey dafay nekk loo xam ne rek dañ koy lancer mais incha allahu dinañ ko gën a dëggal te lépp lu fi wadd ci préoccupation ci loo xam ne ñoom dañ ko teg suñu loxo mu nekk ay jafe-jafe yu ñuy rencontré dañ koy jël boole ko euh, si lu ñuy def ndax comme ni mu la koy waxee rek li ñu yitteel mooy fexe ba lépp luy wàllu assainissement ndox yu euh, salte yeeg ak ndoxu taw yeeg ñu fexe ba teg ko ci yoon ba nga xamante ne ni ëllëg euh, problème yi yëpp dootul am